waa sàmm sa kàddu ak waa wàllu hmm. bis bu ñu tàkkoo sàmm jeex na suñu hmm. a jouer faux jeu hmm. faux jeu mooy toog ci télé yi di wax loo gëmul loolu dafay màgget loolu dafay gaaw a rey nit ñaar ñoo euh, euh, may ma ma dugal foofu tuuti rek kon ay sa rek ca live bi waaw yooyu yooyu ko kenn rafet tey waa Sàmm Sa waa waa Sàmm Sa Jikko Sàmm Sa Kàddu Abbas Diop sor dama teg waa rationnel bi hmm. ñoo def seen première sortie de présentation euh, dafa yéex a commencé sax man nampal nañ ma ne bu subaa dama ne yëpp lire journaux yi tonton yu baax yi mais nàmpal nañ ma ne mbir xawoon na fa ñaar teewuñu ci président bi Déthié Fall ak Oumar Youm Cheikh Youm Cheikh Tidiane Youm bu pur euh, Déthié Fall nag ñëpp dégg nañ ma fii ma wax ca la ma ca xalaat moom itam décce gis nañu fii mu génn def conférence de presse euh, euh, di presse di baalu ak euh, Ousmane la ko jiitu gis nañu ay chroniqueur projet taxaw ne déccee leen wax ne di tax bokkul ca coalition bu Ousmane bi mooy Ousmane a ko woowu donc tey li jar a lijjanti tey hmm. les li tax conférence bi pourquoi absence Tidiane ak la. soupçon soupçon pourquoi nous ñu soupçonné leen ancêtre mhm. Ousmane. Mhm. pourquoi nous soupçonné ni ba dans la coalition. Mhm. parce que Ousmane la ni ñun ño and ñun kenn waru jox rew opposition loolu du barka ko wara wax du cierno Thierno mu ko wara a wax du Khalifa Sall ak Déthié fa ak Cheikh yu ño war a taxaw ni Ousmane Sonko waxo deug bo ne nañ la jox majorité mm-hmm. parce que ñun ño andon bi koy wax ño toog ci wax mm-hmm. parce que ñom ño le auto fi ñu parce que ño andon ak Ousmane Sonko partout mm-hmm. bi mi wax ni ni pouvoir opposition jox ko majorité wóorul té ku jox opposition majorité loolu du yak rew moy défar sax démocratie moy sauver république dé ci ngi tok Khalifa Sall a ngi ci wetam Cheikh hmm. ñu mu ngi ci wetam ñeen hmm. ñett yéen ngi dund Ousmane génnaat di wax même heure yi li buggaan di def ni yeena ko waroon di def hmm. au da de wu len genn jakarlo Ousmane wax ko loolu voilà loolu en tout cas bu ñu takkoo sàmm de dina wallu Sénégal. waaye bu ngeen takkoo sàmm euh, Sénégal foofu laay jeexalee euh, ba ngeen takkoo sàmm seen kàddu da ngeen wàllu Sénégal. Mhm. waaye da ngeen cee fekk Sénégalais seen bopp askan wi ndax nag dafa am deux peuples wala trois peuples sax su ma ko mhm. yaatalee mooy y a des hommes politiques. Mhm. il y le peuple. des euh, de de Pastef l'homme pastéfensis nga xam ne ñoom peuple à part la ñoom ñoom secte lañu bokkuñu ci euh, politique bi seen secte à part la boo xam ne ñoo yor seen diine bopp yor seen couleur bopp yor seen im euh, tey ce peuple là moo jàkkaarloo le vrai peuple du Sénégal kon ñetti ñetti mbir ñoo jàkkaarloo lépp doon Sénégal mooy ma ni moo tax li ma yàgg wax rek te foofu la ñuy jeexalee mooy 17 euh, novembre 2000 wala il faut qu'on ne second tour ay am bien mais bi mooy bëri présidentielle parce que euh, vingt cinq vingt quatre mars 2024 doon élection référendum contre Macky Sall woon sénégalais yi jóguñu woon voteeluñu Ousmane Sonko voteeluñu Diomaye danoo sanctionné Macky Sall. arrêté Amadou Ba. Euh, freiné Amadou Ba. <laughs> xam nga loolu boo xoolee depuis boobu ba tey liy dox nii mooy ñi foogul li ma yàgg a wax fii te naa ko leeral sama live bi damay annoncé rek couleur dimanche bu neexatee sama live mooy tey. politique boo ku comprendre fi Sénégal toll nii tey dafa ne politique bi fa amoon fi xew ba tey mooy politique njuuj njaaj dox ci kaw maayin euh, euh, def ay jeu dugal ma ci liste naa mer gedd dem taxawee fee wala position bi ñu ma jox baaxul du ma dugg ci kii wala xaaral du ma sàmm sama kàddoog yooyu yow yaa génn sa bopp ci géem bi ndax dafa am ab avant 17 novembre 2024 mooy yi xew di mais li jar a sóoraale mooy après 17 novembre 2020 ah mbott ba nëpp kon politiciens yi nga xam ne ñu ngi fo yu déterminé wu yu di caaxaan askan wi koy lijjanti fi ne nii Sénégal moo xewle li Sénégal xewle mooy 17 novembre 2024 su kii woote na bàyyi woote yi 17 novembre 2024 suñu date la mooy tous contre Pastef barrage à Pastef à l'opposition pour la sauvegarde de la République mooy équilibrer force yi gis na nag dynamique boobu nga xam ne mi ngi feeñ ci réseaux sociaux yi mi ngi feeñ ci sénégalais li ñu dul sept mois nga xam ne boo demee marché di xam ne dëkk bi métti na client amatul ci marché ba marché yi euh, dañuy commerçant yi xëy suba ba ñu am kenn restaurant yi vide nañu marché bi kasaali ko noonu sénégalais peuple boobu toog di xippi di xool di sept mois yi fi ne métti na benn politicien bu tardé wala buy lijjanti ay poste place du ñoo ko may kon li ñuy wax daal mu am ko bi ku am temps nga dem pour passer ba ndaxte Ousmane nag woowul askan wi askanam la woo pour defal pour mu clair et ma répété ko suba la am lu muy dugal seen bopp yi Ousmane Sonko woowul askanu Sénégal askanam la woo wi askanu Pastef ñun nag askan wi nañu toog seetaan naa mu gën ñoo confirmer li tax mooy foofu suba du nga fa dégg dara lu dul li mu gën a mën yàq der tuumaal ay gor sosalaate menacé xuppaate toroxal ay sénégalais ndax wax naa ne Ousmane amul projet pour le Sénégal mission la am li ko Doudou Coulibaly waxee mooy détruire le Sénégal de l'intérieur man nag fii laay leen di tàggoo tey suñu émission bi gis ngeen ko euh, dañooy jéem a yaatal de temps en temps. Mhm. dinañ jël waaw yooyu dafa am import comme ni wax rek euh, ñun nekkuñu fii. Euh, infiltré bi am na ci voilà non non dafa important voilà parce que même lool sax xam nga lu am solo abu mooy. dama dama wax leeral ne man nekkuma ci ay équilibrisme. nekkuma ci euh, ay yaatu la yaatal ak ay yooyu nekkuma ca ndax chaque jour je le répète euh, presse bi cent pour cent presse bi quatre vingt dix neuf virgule nangam pour cent yëpp pro Ousmane Sonko kon dafa war am nu mu gàtt gàtt benn presse boo xam ne dina dem à compte courant mooy jël ña parce que ñii ñi nga gis fii du nga leen gis ci presse booba kenn du leen invité mm-hmm. xam nga euh, li ma wax rek ne euh, àddina kenn ku nekk ci yow surtout fu Sénégal toll da ngay def sa choix taxaw ne yow fii nga taxaw ñi ngeen gis fii Ousmane Sonko yi lu neex Ousmane Sonko la neex wax nag fii li neex li neex askan wi la ñuy wax nañu ci askan ba lañu ñun ñu assumé ne équilibre dafa naturel ku bëgg a dégg yëpp Ousmane Sonko xam nga yan chaîne ngay seetaan mais ku bëgg am beneen version mooy version dëgg ndax fii ñu fi wax ñu qualifié ñooy wax ñu xam li ñuy wax ñooy wax ñu farul fenn ñu am ñooy wax kon équilibre dafa am solo waaye de temps dafay am solo ñun ñu jël kenn koo xam ne euh, idéologie Pastef la am mu ñëw ndax ñu ragaluñu ñun lu ñu def nii ñoom duñ ko def yeneen télé yooyu yeneen presse boobu du ñu jël kenn ku bokkul Pastef waaye ñun de temps en temps en tout cas sama plateau boo xam ne nag toog di ko présenté de temps en temps dinaa jël kenn ku bokk ci idoo ndax ñu ragaluñu contradiction bu tey gis nga tey dañ ko dañu may suñu grand Aliou Ndiaye ñu koy nuyu il s'est libéré parce dafa am yeneen euh, euh, rendez-vous euh, tout comme Aliou Aliou Aliou Sow gis nañu actuel Aliou Sow moom mi ngi Walfadjri actuellement na foofu la nekk donc ñu jël ko may ko temps mu wax alors que bu dee yeneen télé yi buñ jëlee ku ku ku ku bokkaloo ñoom xalaat dañ koy ridiculiser humilier ni ko samay mu wax ñun nag fii dañuy bàyyi nga wax sa xalaat nu nu ko neexee modéré boo xam ne dina mën a wax ndax fii ñoom dañu bëgg mu nekk labo nit ñi di wax di dégg kon tey émission bi ni la tëddee woon semaine prochaine nag incha allah vendredi prochain ngeen gisaat ADFN ko ñun ñun ñun entre soi la ñu xam buñ ñëwee. Ah, voilà nga jox la benn exclusivité. Mm-hmm. am na ñoo xam ni. Mm-hmm. Karim moo leen di tontul bopp. Ah, te ñu xaar bu incha allah ñu gën a xam lu tax mu yéex a ñëw.